Christmas. peux ne faire rien ici, que y a un grand changement. Quand les gens viennent dire Assalamu alaikum, après il est qui ah, C'est maladie ça. Et eh oui, moi, Il faut que tu ah ah tout gâté ici. Toi, tu es boppam. nee na may dem ma ne tàggoo ko. Eh, moo tax fas si tu vois Caïman là tu dis qu'il fait rien mais quand tu attrapes par son quai là tu vas voir qui est Caïman. dafa leer. lui il va connaître qui est mieux dans ah, ah, ah, euh, le ah bon oui. bon tu sais xam nga man je suis polygame. waaw mhm. ah dama polygame ci lépp ah. waaw ma sentir fa ma boole si ñetti couleur. non ah non ah waaw <laughs> waaw. c'est que yow déjà la vie il faut oser. waaw yow da hmm. nga osé yow da a surtout dama daa. ah. dama daa mooy sama pala. non da nga polygame. mais bon à part ça si du la parité

Ndakaaru bàyyi bu ñu xëñaanam koy dàq ànd ak benn fungu dàq réglewul problème bi. DG man sama liggéey amul caaxaan de da ngay ñëw ñu liggéey ñu liggéey mënoo ko nga puus man ma continuer. mais bon à part ça yow Chacha foo ko xamee. fan laa xamante ak Chacha. <laughs> mais DG yow question boobu pour lan la lu tax ndax question boobu. non dara dara dara. xam nga mag Chicha ñu ngi bëgg a sori ñu ngi bëgg a yàgg mag moom. waaw mhm. ah te man xam nga ne man su ma suuboo damay tooy. mais man lu ma jaaxal mooy yow nu xëyee nii wax ma waxu Chacha di laaj waxu. non jaaxal ko non dara dara. Hmm. moom la jaaxal. tu sais xam ne jigéen ñi mënul leen maîtriser tey rek ñu mel ni suba ñu mel ne. waaw hmm. ah dañoo bëri facette. loolu dem sama.

vois ça, tu vas même pas monter sur l'escalier ici. Locus. On peut s'asseoir. DG, une minute seulement. Je vais parler avec toi, s'il te plaît. Attends-moi, je. S'il te plaît. Donc là, donc il faut xaar maa ngi ñëw. ok je comprends. allô. Kanté. ça va vous allez bien. ça va bien merci. c'est Chacha. et à Bamako ça se passe bien. Alors dis-moi, pour le produit, je dois le mélanger avec du café Bien chaud. D'accord, ça marche. Merci, je vous rappelle plus tard. Merci. pense que ici c'est marché quoi. Hum? Tu rentres comme tu veux, comme ça. Et dehors, tu cherches qui Le Seigneur. Hum. yowee lu tax kii bi mu ñëwee d'accord ko nuyoowul non. eh eh on ne verse pas toutes les sauces hein. Tu peux verser Damada, c'est pas grave. Mais si tu verses ma fée, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Hein? Mon bébé. Tu l'en es, bébé. Comment tu vas Marie, non, non. Non, non, non. Ça va bien Bien, et toi Mais bon, t'as une idée modifiée. Ça va là Mais t'as une idée, moi ça fait loin, ça. Au courant Mais, on a envie de me faire des batch. Pardon bi mooy firi rek bàcc. firi bàcc. waaw moom la. en tout cas yaa ngi may fooyee. fooyee. ah oui am na lu bees si ginnaaw. lu bees ah oui. ah donc waxtaan naan Dakar ak Daaro donc je trouve que ils raison ci man donc ñëw na ne ma série bi mënuma nekk acteur principal foog ñu benn acteur professionnel donc je me suis dit pourquoi pas bàyyi ko ñoom. nga bàyyi leen. ah yow ndakaaru daara wax la rek nga bàyyi nga bàyyi. yow ak ses répétitions yi métti et nga ñëw rek abandonné noonu nag maa ngi doog a gëm nag danga ñàkk fayda yow ndakaaru moo lay ilif. du question la ñàkk fayda. nga ñàkk fayda kay. non ah hmm. bien. teeku ma en plus. Hmm. lii ko tegi naa tànk te en plus tu sais alalu golo ca leex ba. waaw hmm. ah sama alal nga duma la bàyyi ngay tere noonu ñu jàpp ne alal ku sàggan la doxuma ci yooyu donc j'aurais préféré nga ànd man teggi tànk. <laughs> man ma bàyyi séeréer bi ndax yow maa weñ def ma ko. ah waaw. yow fii laa fi fay spa xamaam jënd ay yére yu dul jeex ah jënd ay perruque di ko teg. couleur bu nekk am naa si pour tournage bi yow nga ne naa bàyyi série bi ndax la. non yow boo ñàkkee fayda ma ñàkk ma fayda yaa ngi dégg. xam nga ne baraka au moins sans monsieur au moins loolu vide la. vide ah te bu dara sax man sama noonu ñu may ñu may ñu may xaar yow imagine bu ñu ma gisulee ci série bi dañ may nga jox leen occasion boobu nag defuma ko damay tourner. yow loolu yow da ay ñaanee wala moi je comprends pas qu'est-ce qu'il question dama la ñaanee mais tu t'imagines man ma toog te ngay xool ak beneen gor et après mais loolu loolu bokkul ak vie privée loolu se juste pour un jeu. non écoute-moi là Sénégal lañ nekk xam na ñu réalité lii Sénégal dëkk bi daa bëri ay bukki. je sais faire la différence des choses ma vie privée ma vie professionnelle ça fait deux yaa ngi dégg waaw damay liggéey. je comprends bien si li moo tax kay xëcc ma gis ko fii. ban xëcc noonu. laay man maa ngi doog a comprendre. xëcc di dama neex mu ngi woon fii keroog ma dajeeg moom ci bunt bi. Dakar lu mu def sax xaw ko la la chance me sourit nii imagine mu nar def duo ak xëcc benn épisode rek ma lancé wu ma am buzz. ah nag ba faw. xëy sa petit con là. yow de xamoo ko. mais écoute-moi là sa gars yi laa nga naa ma xamoo ko si. incorrect waaye dina ma jox buzz de loolu laa ci soxla. waa léegi yow lan nga may si lan nga may nga yaakaar ne ma dinaa la bàyyi ak sa petit incorrect là. <laughs> ay boobu diyo daa it tax a it tax. dafay rire nii. <laughs> bilaay maa la raw. li nga def baax na. li ma ko oyofal nii rek. day gën ñëwagul. ñëwagul. déedéet. mais nga koy xaar ci biir. Ah. mais chérie tur bi naka la. man si Mimichou. Mimichou. Mm-hmm. man Ndeye Fatou. Ndeye <laughs> nga gisee keroog produit Nice bi. baax efficace ba bëgg baax si yaram nag. lii vite fait da gis résultat. Ah, moom tey buy jeex ma leen commandé waat beneen. amul kii daa tànk bi day metti de. mais Abbas baa xam nga ne yow def nga fi lu fi kenn deful. Hmm. da nga daanu daanu bu am jom. eh. Hmm. xoolal am naa frotté bu verte bi yaa ngi dégg dama koy jaay ak karité Mali bi soo ko jëlee nga mélangé ko boo ko tuuti tànk baax na de. léegi mais daanu bi dafa am jom dama la bëgg jaay frotté ak karité nga diw ko ci. soxna si bien. wala maa ngi si jàmm. mën naa dugg toog. bien sûr kaay toog. Abbas kon la ngay dugg yow amoo jom de. tur bi naka tëdd sax. c'est Mimi Chou. Mimi Chou. am na moom suñu tur bi moom neex na moom. tuddee naa la ko. Mhm. man mii. waaw boobu. may nax waaye. non doo ko ñuy nax tamit. moom hmm. mhm. neex na moom moom neex na ba pare moom. sa journée neex na moom. loolu yow da neex. <laughs> wax nañ la lool. Hmm? wax nañ la da nga neex. te man mii. Hmm. même su bëri nga koy. non c'est bien. voilà ne tatouage. waaw foo jëm. toogal looy daw. toogal. va yaa ngi jàpp Anamas ñëw ça va soxna bien. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. Mm-hmm. dafa am koo doon seet. man Daaru laay seet. Mm. Ah, soo paree maa ngi ci kaw day naan. xaw ma ne ñu. ci kanam quelque chose. c'est que fële ma nekkoon dafa yaraax. Hmm. te boo fay recevoir yenn kilifa yi du la jox gëdd. effectivement loolu tax ma ñëw aménager fii pour samp fii. lii samp la xam nga ci yu ma nekk ci seen yeeg yooyu noonu. koo ñëw recevoir di waxtaan ak moom. dugganteeg moom foofu. bu tourné xool caméra yi dina xam ni kii yemul ci wax kese. waaw ah, dëgg la. voilà loolu moo tax ma ñëw samp fii. ngay dëggal sa bopp daal yow. jeex na taal waaw. nga lépp yow. Mm. mais yow saa mm. euh, gis nga xale bi nekk ci saal bi. waaw waaw moom la nga doon wax démb nag. xale bii la. loo ci wax. non baax na de ah, baax na de. nag léegi sa xamul. maa ngi wax ak moom mi ngi ree quoi mi ngi ree di goxtaan di kii nii nice. dafa mel ni dafa baar de. <laughs> mais en base yow nekk de ah dafa baar de. Ah, seen soxla yi baax. saa bi ma duggee sànq xool situation bi jàng ko. waaw baar de amu li nga wax. faay bu njëkk mooy distance bi nga créé sa diggante ak moom ndax moom fii la toog nga toog fële mais foofu courant mënu faa jàll gis nga booy gérer da ngay li ngay def bi ngay xëcc chaise bi teg ko mu tafu ci moom ngay waxtaan ak moom demee ñu kiy déyante ak moom bu boobaa da lay mais grave yi nii amul benn problème dinaa la jox ay barrage moom mais yow dama la gis sànq ngay suux oui keroog bi may wàcc noonu. Hmm. waaye bi may dugg si salle bi kay dafa xas tam xam naa cat la quoi. mais <laughs> Abbas loolu du cat de. Hmm? émotion bi nga wàccaale te pourtant ne woon naa la nga jël ko bàyyi bàyyi ko foofu mais loolu nga wàccaale mais loolu bu ko jàppee defet du defet dañ koy rectifier loolu ah. Hmm. léegi euh, nañu jublu ci défi bi comme que defar lañu liste bi keroog. ah mais bul exposé sa bopp tamit ñëwal. comment tu vas. ça va ça va bien. oui toogal. merci. Mimi. ñu ngi def tey bu la dalati. Mm-hmm. boo ñëwee ci kër boo nee koom-koom la ngeen ñuy borom kër gi. loolu mm, jeex na tey. bon. waaw ay muñu li muy ñëw ba ci kaw nuyu la. tey defuñu mais amuñu problème parce que li ma la bëgg a wax nga jégal xool bu baax. donc tey ñu ngi xëy si. waaye gis nga simple la ah ko def. Hmm. ah ngi musul mu saf sàpp Dakar. ah yaa ngi mel Dakaru Angleterre. Angleterre. ah bien sûr. dégg lool. sa taas gëm naa ne yàlla fàttewu ma. Mhm. ah hmm. parce que li may won fa nii nii nii xam naa ne du ay gént. yaay dooy gént. yaa wax lii. fa mu génnee sarax. donc du coup sarax yi maa ngi doon xalaat génne ay saraxu akara. akara. waaw ah oui ay kaan yi ay pobar. pobar nag DG. Ah sarax bu saf sàpp laa bëgg a def. sa <laughs> sarax dina saf. du coup à part ma fii keroog nee na ma informatique nga def. man vu profil. yéene naa leen lu informatique ngay toog ci ay machine di tapé jour et say bët di yàqu. donc du coup xam nga lan laa bëggoon ci yow. c' était mun na nekk chaque jour bu may nuyu si indi daal ma sama café. Ah ah xam naa ne sa café du ñàkk dose yow. dalal la sa xel. Hmm? waaw pour man rek. mais Mimi est-ce wax nañ la man dama bëgg ndawal. Hmm. ah oui. wul na ko. te dëkk bi ñëpp xam nañ ne bëgg nañ ndawal. waaw kenn bañ ko. mais ndawal yi wute nañ. waaw ah waay. ñëpp bëgg nañ ndawal mais man ndawal taamu naa ci dibi. waaw mhm. ah te yow mii dibi nga. déedéet bu ma rey waay. dëggal ma li ngay wax rek <laughs> te en plus sa tur tamit daf may jox beneen bonheur mu koy dégg. Mhm. xam nga dégg-dégg ci bànneex la bokk. waaw ah loolu am na. rawatina ma ñëw ne la noo tudd nga ne Mimi Mimi Chou. wute nga ak sa yeneen moroom ci dëkk bi. Mhm. am na ay nogay la ñuy tuur ay ndey dikkee. ay dëgën. tëri tëri dëgër yooyu <laughs> loolu c'est violent. kon tur bi neex na. tur bi moom daf leen lu kon neex tëddee nelaw. ba yàndoor. mi ngi doxalal. Hmm, voilà bon. déglu bi ah c'est dañuy commencer. fu gën tuuti. Mhm. jëm ca kaw. waaw comme que tey débat la wax moom. Mhm. dafa war a wuyu turam. léegi bindal euh, naana. naana. Mhm. naana cent mille. ma def naana ñoom ñaata nga def. cent mille franc naana. saa yi xanaa yow toolu Dame Thiam nga bëggee indi si tey débat bi. tool cent mille franc naana foo dugal. bindal cent mille franc naana. waaw ah ba. Euh, comme que gars yi dañuy waxtaan foo mu am waaw da siy baax. Euh, bindal caaf euh, gerte caaf. caaf waaw gerte caaf deux cent cinquante mille. yàlla. gerte caaf deux cent cinquante mille loolu laa bëgg ñuy ñëw foofu seen biir yi daw xanaa. deux cent cinquante mille gerte. waaw kon dëgg seen biir yi léegi xoolal dañuy def gerte caaf ak gerte kemb ñu seen biir yi oyof ñu laal kemb ñu seen biir dëgër ñu laal caaf defal trois cent mille. Dakar xam nga lan la hmm. man duma sa morom. Hmm. yow na bëgg yëpp laa yàq. Dakar yow da ngay surfacturé waaw oh. waaw da ngay surfacturé kay ah man sa affaire yi nag nekkul si quoi ah. yow. Ah, cent mille. gis ma ko joxee nii nii jàppal ni xale bu la waroon branché récupéré naa dossier amul benn problème. gerte trois cent mille. xool dafay gerte war ka warka waaw warka waaw. na naan téye. français tamit. lépp benn la rek. warka hmm. defal sept cent mille. dëgg la da yaa ngi seet yàlla si li ngay wax. waaw sept cent mille warka. waaw yow xanaa Sénégal bi yëpp ngay attaayal. mais wax nga ko. Ndakaaru dafa njaboot ñu toog sama ginnaaw dafa bëri. ba si warka sept cent mille. yaa ngi yaa si li ngay wax. saa yu Sénégalais dafa bëgg attaaya. te foofu gars bu ñu ñëwee dañu war a naan caayam bu baax. bindal sept cent mille warka waaw. Euh, ma xool de beñe beñe bindal beñe. beñe waaw beñe bi euh, ma xool hmm, defal un million cinq cent mille beñe lan la bindal taay yi ñetti variété beñe laay defar damay defar beñe coppati defar beñe dugub defar beñe farine. lu la neex lu la neex defal lu la neex loo xalaat rek defal. namm naa la. waaye yow Dakar waaye namm naa la. Ah, sama ah. grand gox. waaye yow tey de moom am naa gan. sama sëriñ bi waaye moom a seet si. ah, ah soxna si na ngeen def. ki bijou la moom moo koy kër yi daal. mais acca leen excellent. sëñ bi toogal. mais sama xarit. waaw mais waaye toog waaye ñu waxtaan. mais sama grand. mais kii kan la nii. maa ngi lay bëgg de namm naa la de grand bi. Ah, depuis depuis la dernière fois. waaw waaw waaw waaw gis na de sëñ sëñ bi laa laa ah, ah, eh, eh, eh? maa ngi ci liggéey bi waaye ah. waaw jàmm waaye. Mm. soxna si na nga def. sant sant bu baax. ndeysaan. xam nga fan yii grand papa fan yëpp sëñ bi dafa nekkoon ci répétition yu méttee métti. Mm-hmm. répétition bind texte. léegi bu mu demee nag ba pare. Mm-hmm. daf ma woo téléphone. dama wool ma papis mhm. ñu ñëw fa dugal voix yi mhm, mhm, loolu ah, moo tax tey ma ànd bi daal ah, ah. Mhm. bijou. yow pare nga mbaa. pare nañ lépp nag. Ah, eh. mbalax mi moom moom moom bu saf sàpp nañ la defal. ah waaw waaw dafa war a cukk mhm. de waaw. am na lu ma ko wax sax. Mhm. day nit ku baax nit ku oyof. ndax wax dëgg yàlla bu musique sénégalais yi egg fii. wax dëgg yàlla moom. moo tax. jërëjëf jërëjëf. Ah, jërëjëf waaw ko ñaanal rek yàlla gën koo yokk. amiin bu ñu paree rek ñu jaar kër gi ma jox waaw waaw waaw waaw aywa jërëjëf tey sëñ bi waaw wow grand papis léegi mun nañu àgg ci biir ci studio bi. waaw waaw ah moom kay des na ci ñoom moom kay fi mu ne nii affaire yi pare na waaw mbalax mi moom saf na xanaa dugg rek wéy ba mu saf rek mu nga awkat bi muy bijou àcce eggalañ ci biir. daka naay sëñ bi tey sëñ bi jox ko bi yaa fi ne. cuq dafa am borom sëñ bi yaay borom ok waaw ma tegal la ñu dem waaw nañ dem waaw cuqut naa cuqut naa Ousmane ne la baax cuqut naa iwaay Ousmane wel kii